donc moo waral set setal national bi nga xam ne le le premier ministre l'ami de honorable moom dina dem suba euh, Ndar ba euh, kii euh, maire Ndar nee na moom Mansour nee na dina ko teertu. il républicain c'est normal nee na na waa Ndar yëpp génn teertu ko. donc c'est quelque chose de franchement. Euh, beau à voir c'est ce genre de, de discours voilà. nous di yow kay fi ah. <laughs> sama collègue bi damay jàpp ni man beneen Macky Sall lay <laughs> ay xarit jéem a bu dul Macky Sall yi fi jaar. xeer bi non xamoon naa xeer bi dina ñëw xaaral ma defaralal la. man damaa yàq man xaaral fam ñaari Macky Sall mais Macky bi yàq réew mi fii. rey askan wi toroxal gor yi du Macky Sall moomu sama xarit nag yow moom. Oh. yow sama xarit mais xam nga da di loo xamante am solo la. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. parce que man c'est la nguuru Macky Sall ak la mu fi woote woon lépp kenn mësul dégg sama kàddu ma yëkkati dugal ko si bi ma déggee premier discours Bassirou Diomaye Faye ngir wootee set setal ma xam ni loolu mu woote lislaam sax moo ko njëkk a digle mm-hmm. cela njëkk a def déclare fekk maa ngi morial wax Sénégal yëpp ñu génn ba pare man mobiliser fa ma dëkk ñu génn def set setal bi mm-hmm. suba tamit noonu laa koy defee ànd ak moom ci set setal bi gunge premier ministre ma dem Saint-Louis ma woowaat Touba ñu génn def set setal àddina mooy noonu Macky Sall mi ngi ko tudde woon calendrier mais dafa dem ba am politique xam nga mujjur yàgg gi kenn xamatul bis yi parce que bu jëlee sax kenn du ko def nan waxante dëgg rek. parce que nag am na si instant diggante bi bi mu ko tàmbalee ñaari yoon ñaari yoon ñetti yoon doon na génn doon na bale buntu këram bàyyi sama buntu kër waaye nag ginnaaw bi kenn xamul tey kilin di bis bi ñu ko war a def. Mhm. comme ñii nag yàlla dogal na ñëw nañu. indi nañ lu bees muy jub jubal jubbanti. Mhm. ak joyanti. ak joyanti. li fi Macky Sall def lépp lim lim. ñoom jumaa yoo koy fay. bërki démb bu mbaayoo oh, cent trente milliards yoo xamante ni Macky Sall bàyyi na ko si banque islamique ñoo ko fay. l'état est une continuité. lim lim lépp ci suñu xaalis la ko def def ko si xaalisam. absolument. kon jàpp naa ni waru ko ndamoo dafa war a delloo njukkal Sénégal yi nga xamante ni lu mu war a def te du ko def ñoo ko def honorable mayel jàmm honorable ba mu wax ba pare bi ngay wax dafa am élégance déglu la bu dee si sa alal la da koy sant gërëm sama jigéen bàyyi ko wax bàyyi ko waxaat loolu moo tax suñu haut fonctionnaire yi ñu leen di sant di leen gërëm rawatina le président Macky Sall maam Guèye Diop Seck honorable bàyyil honorable mu wax 100 jours mënaguñu teg benn yow xam nga ni waaw non dinañ yegg si 100 jours dinañ yegg si 100 jours bi dinañ ah, def déclaration de politique générale bi dinañ wax ci assemblée nationale bi ñu bëgg a dissoudre mais bàyyil euh, honorable euh, Cheikh Abdou Bara Dolly ah, mu yeggal allez-y allez-y wax dama koy bàyyi rek mu wax daal <laughs> xeer yi daal diis nag Mbacké Ball wàññi waaw xam nga <laughs> dëgg moo metti parce que Macky moom jëf ju ñaaw ji mu fi jëf ba keroog fii ak 50 ans duñ ko fàtte man mii rek bokk na si jëf ju ñaaw ju ma def moo ma toroxal yóbbu ma kaso tëj ma kaso makee ma ko def te ma koo yàq sama dund nit ki nag ku la tëjee kaso yéen na la dee te makee ma tëj kaso te tëj na centaine de personnes ki nekk président moo ko tëj kaso ki nekk premier ministre moo ko kon jàpp naa ni da loo xamante ni Sénégal yëpp dañ see war a jóg jàppale leen gis nga ay ndaw yoo xam ne dañoo am procès am yaakaar am yéene pour réew te bu mu doxul yow nga am jafe fexe leen a adhéré jàpp ñàkk ñànk maanaam ñàkk du tax a ñénki Ablaye Wade jaar na fi ba mu fiy jógee mu ñaanal Macky Sall mu ne fi Macky jóge na fi ñi nga xam ñoo fi nekk nañu accompagner yéen yéenu bu rafet ci ñi nga xam ñoo war a doxal ndax ñii ay ndaw lan te jóge guñ si réew mi de. Hmm? te ndaw jóge guñ si réew mi de. ñaata at yooyu. ah daan am gën ngaa néew ñett ba ñeenti mandat de. ah ah. xanaa mandat bu ne un la. <laughs> bu kii toogee ba doyal jox kee mu toog ba doyal. Mbacké Balla man en vous man su ma la déggee ngay wax ni dafa mel ne yow kon nekkoo ci opposition bi. opposition bi lan xam opposition Macky Sall si nekk ak ak député man réew mi laa àndal. non au <laughs> niveau de du législa au niveau au niveau de l' nationale. Eh. nous sommes au pouvoir ñun benno waaw non yéen foofu moom yéen a bokk. man nag man moo tax gars yi duñ ñëw def déclaration de politique générale. man maa ngi ci réew mi maa ngi ci ñii jubal jubal jubbanti parce que réew mi la fa yàqu daa bari woon mais man bi voté jotee yow da nga ñëw sama plateau nga ni ma man du ma voté euh, Amadou Ba ko waral waaw jub jubal jubbanti gi parce que Amadou moo ñëw ba Touba ci sëñ Muntaxa ni ko la ko defal ma gàñe réew mi daal ni ma Cheikh Abdou Bara Dolly la bëgg jàppale mi ngir sëñ Touba bu ma gàñee nga indi Lac de Guiers sëñ jaral na ma lu nekk moo tax ma def ko mënuma bu ma gàñee dinaa gën Ousmane Sonko si kaso bi sa xarit la te Macky Sall ko tëjoon ma jàppale ko bu doon suba ma ko waaye loolu nag jotewul jàppale woon nit ak tey li nga xam mooy li fi am la yàlla def ba nangu ko ànd ak ñoom parce que Ousmane Sonko mii moo tax Macky Sall tëj ma si kaso bi bu nit ñi fàtte loolu jàppale Ousmane Sonko nekk ak moom ñu koy tuumaal 2017 ma nekk ma assemblée nationale 2019 ñoom ñii boobu nekkul assemblée ay député di xeex ak Ousmane Sonko ba dama fa saaga ay waajur yëpp ak maanaam tuuma gi nga ko doon tuumaal ci affaire viol te du dëgg ma génn ay rapport yoo xamante ne xam nañ liy dëgg ànd ak moom ci combat boobu moo tax mu accès de pouvoir Ousmane Sonko nekkutoon candidat moo tax ànduma woon moom bu nekkoon candidat moom laay jàppale parce que xamoon naa leen si moom kii nekk candidat xaw ma ko woon koo xamul nag mënoo ne mooy lii Sénégal yëpp nañu maase bu suba ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñooy nguur gi kenn ku nekk fa nga nekk nga set sete foofu bu kenn ku nekk set sete fa nga nekk dëkk bi set waaye set sete gi nan ko jëkke si xol yi nan setal xol yi mhm. xol yi dafa war a set ñu yéenante jàmm pour réew mi mën a avancé réew mi bu avancé wul soxorante gi fi am ak mbañante gi yàq gi moo war a réew mi avancé wul lu yàlla dogal da nga koy nangu nangu dogal bu yàlla bokk na si nangu maanaam si jaamu yàlla nit bu fekkente ni yàlla da nga koo xeex mu nekk opposition nga tëj ko si kaso bi tax 80 personnes faatu yàlla yëkkati ko jox ko nguur gëmal yàlla loo mënul opposition waroo ko mënal ak nguur gi kon jàpp naa ni woote googu Mansour woote ñëpp ko war a def ñoom ñi daa war a génn bu suba te jàpp naa dana génn. man bi génn ñoom juguñu. waaw da nga génn suba. parce que loolu da nga génn bu suba da nga bale parce que da nga ni. <laughs> man bale rek laay def da nga war a set setal. <laughs> man du ma jël ay saako di ko dugal ci ay maanaam ba nga xamante ni askan wi yëpp dañuy ànd ngir que maanaam set setal googu noonu ñu tàmbalee ko ci xol yi tax saw réew mi ba pare yoraale bale ga xam nga jomaay daa ñu yoru bale bale googu nag am lu muy signifié mhm. waaw il faut ñu setal il faut ñu setal lépp il faut ñu setal lépp ci lañ dëkk d'accord Euh, en attendant d'avoir euh, la réaction de quelques téléspectateurs au téléphone euh, maa ngi leen di yëgal ne yéen ñu ñu seetaan mën ngeen a jokkoo ak ñun ci téléphone bi ci 88 628 14 13 mooy numéro bi ngeen ñu mën a jotee su ngeen bëggee ci ñetti tomb yi nga xam ne jot nañ cee waxtaan euh, muy euh, mbiri examen yi mbiri étudiants yi ak mbiri set setal yi balaa ñoo yegg ci yeneen ñaari ponk yi nga xam ne daañu ci waxtaan muy euh, ñaar euh, téeméeri fan yi nga xam ne euh, nguurug président Bassirou Diomaye Diakhar fay def nañ ko ci boppam réew mi waaye aussi li ñuy wax déclaration de politique générale ndax indi na coow lu bari Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député moom it am na projet de loi boo xam ne def ko introduire daf ko bëgg introduire assemblée nationale kon ngir ñu xool nu ñuy àndee xeex borom ñaari tur yi te loolu defe naa képp ku yeewu ci réew mi war nañu mën a bokk ci criminalisation bi te bon c'est pas Sonko le président mais à l'époque il était dans l'opposition ne woon na bis bu jotee ci nguur gi euh, dinañ def seen kéemtalaay kattan ba criminalisation boobu am leen ci mën a xam bu ngeen ñu bëggee jot mën ngeen woote ci numéro de téléphone boobu di 14 13 628 88 au début euh, Ceddo ci mbiri euh, set setal bi ñuy def l'initiative tu le trouves comment bon initiative bi baax na Pape Sidi. Hmm. mais ku nekk ni nga toll noonu ngay bale maanaam. ku nekk ni nga toll noonu ngay bale bale bi nekk ci loxo joomaay ak bi nekk sama loxo bokkuñu xam nga fii Sénégal toll actuellement nii bu balee buntu kër yi balee mbedd yi ah après mbalit moom fan la jëm. Hmm. bu demee mbëbës qu'est-ce qu'on fi ñu toll nii une unité d'incinération war nañ ci xalaat war nañ xalaat recyclage war nañu xalaat pavage des villes comme Dakar Saint-Louis et cetera parce que boo jëlee dëkk. ah là président Macky Sall avait fait des des enjambées par rapport à ce point-là. mais programme xëyu ndaw ñi pour paver yenn gox yi la woon. waaw mais je ne parle pas que de pavage. Mm-hmm. dama ne mbalit mi am Sénégal bi nga xam ne Sénégal yi moom la ñuy produire chaque jour xam nga ñaata la mhm. xamuloo ko ñaata la mais xawuma ko te c'est des chiffres qu'on doit avoir mhm. l'économiste est là chaque ménage li muy produire ci mbalit mhm. dañ ko war a xam dëkk yi dañu toll ci fi ne nii war a xalaat nan la ñuy def ba am un modèle de tri de de de déchets xam ne lii buñ ko defee ci bërigo bii usine sàngam la jëm dañ koy recycler lii lay juraat xam ne lii dañ koy incinérer culture boobu lañu ñu war a def ci sénégalais yi fi ñu toll nii Pape dañu bëri. Mhm. sunu mbalit xajatul mbëbës. te nit ñi dem nañ ba sës ci mbalit bi fi mu toll nii. Mhm. à défaut de dire dëkk nañ ci mbalit mi. donc même mbëbës fi mu ne war nañu xalaat fan la jëm. loolu moo ma gën a préoccupé que ñu génn ci mbedd yi seen une très chose. mais xeebal naa ko président Diomaye xeebal naa ko premier ministre Ousmane Sonko. maa ngi ñëw ci yow am na ku nekk ci téléphone bi asalaamaaleykum. dem na mën na woote waat yaa ngi doon wax lu. comprendre nga mhm. foofu laay waxee. mais déguerpissement aussi am na parce que après. dinañ xool élément que loolu yëpp c'est nga. boo tolloo ci war a déguerpir. Mhm. day fekk ngay dox ba tolloo mhm. war a déguerpir. munoo xëy rek ñëw ne cëpp nit ñi ne jóge leen fii après lan nga fay def. parce que faut pas créer des vides parce que vide yooyu mooy créer ay frustration mais vide yooyu en Par ay passage piéton lay doon oui je mais tey jii gis nga le langage élan gis nga li ñuy wax nii pour du pour politique tous les leviers sont au Sénégal ambulants yi pour envenir venir à ce que à ça parce que lool ngay junju nii mhm. demal nga wax leen ne leen sénégalais yëpp benn baat xam nañ ko mooy borom bitiku mbagg boo ubbi xolam kantin moo nekk ca biir waaw borom cantine boo ubbi xolam magasin nga ciy fekk. Mhm. donc il faut que nga proposer de moderniser le commerce sénégalais fexe ba créer ay centres commerciaux yoo xam ne ñii nga xam ne ñoo nekk en priorité ci yenn zones yi occupé ko depuis dix quinze ans ñooñu nga fay reloger ji ak ñi nga xam ne ñooy taxaw ci seen kanam ak seen i ginnaaw mais nag day ànd ak accompagnement état ñii dañuy am ay moyens dañuy fay. ñii amuñu moyen DER moo leen di financé ñuy fay DER nit ñi génn ci mbedd mi dugg ci ay cantine mais jóg fi rek du solution. nga baal ma ma jël ki nekk ci téléphone bi euh, bala ñuy continuer asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyu El Hadj Pape Sidi Fall. maa ngi lay ziar bu baax noo tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd El Hadj Dame euh, ñu ngi lay ziar. di prince de Sage. ah <laughs> alaaji dam waaw notre alaaji dam maa ngi lay a baax <laughs> alaaji da ngaa am loo bëggoon bokk ci waxtaan wi bu baax a baax a baax maa ngi ziar sama xarit bi Ceddo Murit bu baax a baax jaare naa la sang bu tedd bi euh, di ziar honorable député aussi Baara jërëjëf sëñ maa lay ziar bu baax a baax ak seen ñaari invité yi doon naa ziar bi mhm. jërëjëf di rafetlu concept d'émission bi mhm. di wax ne ñu ngi koy seetaan bu baax di ko teewlu mhm. niñ ko tuddee di leerlu mooy ñun sénégalais yi ñoo soxla ñu ñu leeral. Mhm. di sàkku bépp autorité mbala bépp sénégalais bu toog ci seen plateau foofu. Mhm. war a xam ne les sénégalais ont besoin leeral bii nii muy leerlu. Mhm. di ñaan lépp lu fa sénégalais yi di wax ngeen koy def rek yàlla na sénégalais yi am déggin bu positif. amiin yaa rabbi. loolu ñu ngi koy sàkku ñu ngi lay rafetlu bu baax a baax a baax ci émission bi. merci beaucoup Alaaji. di gërëm euh, Alaaji Ndiaye bu baax. di wax ne lii ngeen jot a def lu rafet la sénégalais yi lii lañ soxla. Mhm. point par point ngeen kertoo te point bu ngeen teg rek sénégalais bi gis na ci boppam am na ngi leen di jaajëfal. lay sant bu baax di la gërëm di leen seetaan. merci beaucoup yéen tamit mën ngeen def comme Alaaji Dam euh, qui fait partie de la famille ah. au 88 628 14 13 Ceddo. donc li ma doon wax rek Pape mooy nañu continuer cleaning day bi parce que. nu nuñ ko tuddee sax léegi set setal parce que action citoyenne la xam nga man li d'accord naa ñuy jéem loo xam ne à chaque fois bu ñu koy def on implique tous les citoyens parce que culture citoyenne ak citoyenneté lu manqué Sénégal la mhm. lu fi créer ay dégâts yu bari la ñàkk gi nit ñi ñàkk xam citoyen nan la war a doxee ci réew mi ak lan la war a taxawee mais le chef d'État ci li ma jàpp ne moom la war xalaat ci dëkk bu mel ni dakaar nga xam ne par exemple c'est la capitale du Sénégal mooy fexe ba dëkk bi am verdure verte jardin yi am na ci jardin yoo xam ne maar day taali mais culture ñuy gis lu verte ñu dem ba tàggoo ak gis suuf maanaam nga toog bëgg gis suuf Dakar mu tëla ce pari là parce que bu dee ay tali je pense que le président Macky a fait le nécessaire bu dee otopon je pense que le président a fait le nécessaire donc BRT bi am na beneen unité bu ñu war a ubbiwaat yooyu yëpp dans la dans le cadre de la continuité de l'État je suis tout à fait d'accord je félicite l'ancien régime et je souhaite que la continuité soit positive dans mmh. ce domaine-là mais Dakar war nañu xalaat nan la ñuy def ak sunu mbalit yi te il y des pays je veux pas dire un pays de la Scandinavie je peux pas citer directement Norvège ma juum mais am nañu ay unités yoo xam ne à partir des déchets ils arrivent à produire 30 pour cent de l'énergie qu'ils consomment mmh. parce que Pape Sidi dañu ne nous sommes à l'ère de la transition énergétique bari na loo xam ne l'énergie de nous renouvelable ay concept la yu bees yoo xam ne mmh. état bi mën na ci surfer mmh. am ay financement yu baax ñëw ci réew mi créer fi ay unités yoo xam ne non seulement dina créer ay emploi mais dina régler le parce que Sénégal dama lay wax dara gis nga buñ ci jógul dinañu xëy ñun ñëpp kenn ku ne taxaw di xool mbalit mii nii nag léegi nan lañ ko war a def. Hmm. parce que fait un tour à Mbëbës. Hmm. gis nga ni mu demee. donc yooyu yëpp. dañ ko war a xalaat borom camion yeeg concessionnaire yi di. te loolu les entreprises yi nga xam ne ñoom lañu. j'ai quelqu'un en ma jël ko baal ma. Euh, naa Aliou su ma paree ma ñëw ci yow ñu close euh, close chapitre bi door a jàll ci euh, point beneen bi aloo Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Nous allons bien. Et vous Merci beaucoup. Je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît. allez on écoute que vous. Vous êtes en direct, monsieur. C'est en Wolof c'est en français. professeur d'université. Euh, vous êtes professeur d'université. Est-ce que vous pouvez vous exprimer oh. en Parce que l'air, nous l'avons l'air. Wow, d'accord. Ben, je vous félicite par rapport à la qualité de l'émission. Mais je suis un surpris par votre économiste, là, monsieur Ndiaye. Wow. a euh, avec les fait, si vous invitez des, économistes de ce genre, je le débat devrait être très élevé. Mhm. Comment un peut dire que dañoo war a euh, def ay mayonnaise par rapport à ça je pense trop dire aujourd'hui mhm. je donne un seul exemple un directeur général ou bien un, un des impôts pourrait faire cette faute-là ñu baal ko mais un enfant un jeune de dix-huit dix-neuf ans qui fait des erreurs de ce genre il faut sanctionner mhm. il y a aucune façon de dire qu'aujourd'hui euh, en tant qu'économiste dañoo war a euh, c'est des trucs de mayonnaise dañoo glorifier dañ ko war a amplifier non mhm. pour avoir un pays qui se développe, il faut sévir, il faut sévir, il faut sévir. Ces enfants, ils ont fauté. Ah, amul sax euh, bu may dégg euh, kilifa googu le Mbacké Mbacké laa naan ay session d'octobre. C'est-à-dire il y a des sanctions qui faillent et euh, pour terminer aujourd'hui, pour que l'élite sénégalaise soit au vu de tout le monde, il va falloir que boo leen invité ay nit ñuy wax. objectivement, pas mmh. subjectivement, je suis sincèrement désolé, mais je ne partage pas l'avis de, cette économiste en tant que professeur d'université, en tant que président du jury. xale bu def faute a de la façon la plus sévère. je vous remercie salaamaaleykum. maaleykum salaam professeur c'est ça dans cette émission il y a de la démocratie tant que l'avis de l'autre est dit dans le respect on le prend avec philosophie et démocratie. Euh, peut-être d'accordul ak yow amul bokkul ak yow gis-gis. ci point boobu je je le conçois très bien. voilà et puis man ba may ñëw si émission bi peut-être que. Euh, bon bref duñu egg si yenn présentation et tout ça mais ñun ñun aussi euh, a aucun titre usurpé et puis émission bi c'est un peu format wax sa xalaat man mm-hmm. j'avais pas compris mm-hmm. émission bi que dañuy def wax sa xalaat sujet par sujet et mm-hmm. donc moom li mu a comprendre attendez laissez-moi lui répondre parce que je veux lui répondre même en français s'il veut attendez c'est faut me comprendre ne ñun je me positionne pas comme un donneur de leçons